هي طيبة طابت لطيب أصولها ومدينة رب السماء سماها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit ku dégg kàddu yu sell yooyu xam ne mbir am na lu am Ceerno Cheikh Omar Taal mu sunu maam Ceerno Mouhamadou Bassirou Mountaga Taha Cheikh Alhaaji Omar mooy ànd ak xaritam soppeem magam Chérif Ibrahima Haydara Atijaani ñuy amal ñaar fukkeelu gàmmu ak ñaar gi nu jagleel seen maam Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ci ndigalu Serigne Mbaye Sy Mansour xalifa général de Tidiane ak mbooleem njaboot Cheikh Alhaaji Malick ci teewaayu Serigne Mbaye Sy Abdoul Aziz mbokk jullit yi koy dara jaale bis ba kan Cerno Basiru Muntaga Taha xalifa Cheikh Haaj Omar al Fuutiyu radiyallahu taala anhu mbokk yi bis baa ngoog kañ lay am altine yemook fanweeri fan ak benn ci weeru décembre waaye fu ñu koy amale ñu ni amoo kaat ci ginnaaw jumaaja waaw koy def waxtaan wa ñu ni mam maam góor ci lan la war a waxtaan ñu ni ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaarale ko nag ci jàngale Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu taala anhu yamook fukki buntu ak ñaar ci xilaasu zahab fi siirati xayril arab mbokk yi bis baa ngoog ñoo ngi ciy woo ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. hiya taybatun taabat li tibi usuliha wa madinatan rabbu sama sammaha